Eh, ki nga xamante ni modi eh, moo eh, Diaz teunku ci nga teunku ci boobule taxawu Sénégal bobu tay lan naka nga jangate décision bi nga xamante ni le conseil génnee nako di wax ni dañu rek dal di rejeter ñaari recours yi mo xam bu Barthélémy Diaz la mo xam bu Ousmane Sonko. wa merci euh, comme ni nga ko waxee décision yi ñun ñoko déggando déggandoo. Mm-hmm. Euh, benn côté dinañ ci wax euh, alhamdulilah rabil alamin beneen côté bi dinañ ci am tuuti jaaxle. Mhm. Euh, bi ñuy amee bi li ñu waxee alhamdulilah rabil alamin mooy dëgg moom dëgg rek la mën a doon. Mhm. dëgg mënul nekk ñaari dëgg. d'accord mhm. Kaaw Barthélemy Dias ñëpp xam nañ mbir moomu nu mu demee. ak kañ la woon ci man lu ma yaakaar mooy. loi moom. du def rétroactif. rétroactif mënul nekk c'est impossible. Mhm. problème mu Barthélemy Dias 2011 la woon ku ne xam na ni politique moo ko téye muy di ko law lawee ba mu egsi fii. Mhm. sur l'affaire Ndiaga Diouf. sur sur l'affaire Ndiaga Diouf. Mhm. politique nag lépp lu mu la xañ politique moo la koy mayal. d'accord euh, tey suba suba suñu woot suñu euh, woote woon benn loi par exemple fii ci Sénégal par exemple ñu ni tey képp ku fi rey nit danañ la rey. peine de mort. mais am na ñu ne ci kaso bi ñoo xam ne ngi xaar seen jugement. pourtant ñooñu loi bobu ñoom seen yoon du ci nek nekk. légui nak lan mo tax loi bi nga xamanteni euh biñu ñu ko créé yàggul. ci temps président Macky Sall lañ ko créé. ci la lolu tamit xeexu politique la won ñun ñepp fi lañu fekk xam nañ ñu mu démé c'est en décembre 2023. merci beaucoup. ah lolu lan la jotee de décembre 2023 ak 2011 différence bobu ni mu baré mhm. lu ci yoonu euh, Barthélémy Diaz. bu am lolu kay bu amé kenn mhm. parce que Ousmane Sonko il faut que ñu nit ñi ni dafa am ñaari problème yu affaire amnistie bi ñuy wax. Mhm. mooy fee yi nga ni concernant 2021, ba 2023 nous ak mais diggante bi mu am ak Mame Mbaye Niang ñu am seen problème euh, yoon bi nga xamante ni ñee nekk ca kaso ba moo leen fa téye moom moo ni Ousmane Sonko mii li mu wax ci Mame Mbaye Niang du dëgg condamné ko amande ko kon Ousmane Sonko élection yi waru ci woon a bokk bëgg lu neex Ousmane Sonko nag moo tax ñu bëgg cee boolewaale Bart et puis man li ma gën a li ma ci gën a jaaxalati mooy gis nga nit booy def benn affaire da ngay am courage def ko recours bi ñu ko def est-ce que yow xam nga leen coalition boobu <laughs> kenn xamu leen ci Sénégal coalition boobu. lan nga bëgg a wax foofu. ñen ñoo nekk seen ginnaaw ñi nekk seen ginnaaw jërutoon ñuy làqatu dañu waroon a am fitu ni fan li ñu bëgg a wax wala li ñu bëgg a def ñu def ko. ñan la waa Pastef. mais kan moo am intere bi. mais ñoom rek ñoo am intérêt bi mais jëru ko. fii moom gis nga bëgg bëre bañ bëre gis nga ñoom suñu diggante ak ñoom diggante Ousmane Sonko ak Bart gis nga lii nekkul lu dul commencé commencé fañ jëm ñoom xam nañ ko. ah mais diggante Barthélémy Dias tamit ak Ousmane ko ah, taxaw seetlu tamit ah, war nañu def ko fa ñaari doomu ndey ñoo xamante ne nii ah, dégg nañu Barthélemy kàddu yi nga xamante ne nii waxoon na ko fa est-ce que tey ci wàllu politique rek war nañoo mën a yegg ci niveau bi ba nga naan li l'affaire na fekk commencé. gis nga waa Pastef ñoom il faut que ñoom ñu rester sur terre xam ne ñu dëkk bi. ñom ak bart ak taxaw senegal dafa am lu leen boole woon muy lan mooy yewi askan wi. d'accord mm-hmm. ñu am luñ ca waxtaane woon mu mel ni midi nañ and local and législatif. Mm-hmm. présidentiel ku ne demal sa bopp. waaw loolu war naa mën a indi problème. Mm-hmm. Bart ku ko xam-xam ni Bart du nit kuy fen du nit kuy wor gis nga wor bu amee diggante Bart ak Ousmane Sonko Ousmane Sonko moo wor. comment. li leen boole mooy waxtaan bi amoon. Bart li mu wax dafa leer. avant muy wax ak Macky Sall wax na ceeg Ousmane Sonko wax na ceeg xalifa Sall ba am seen aval ca loolu mooy yoon réew mi waruñu nekk ay doon dañu war lépp lu ñëw dañ ko war a waxtaane Bart dem na ñëw waa ji changé avis bëgg ko jaxase ak sénégalais yi effectivement sax jaxase ko ak sénégalais yi laay wax yàq deram mais fen du ba jaww fen boo ci amee mbubu doo ci am tubay loolu moo ko dal Ousmane Sonko diggante barte la Barthélemy Dias nit ñi dem nañ ba commencé comprendre xam ka ni Barth li mu doon def daf ko doon def ak lan xol bu set wecc ci digganteem ak Ousmane Sonko. léegi nag Ousmane Sonko moom dem na ba jàpp ni barte mii mu ngi koy commencé gene mu fexe nu mu ko jaxase ak sénégalais yi. Mm-hmm. mais yi moom. mën nañu nelaw ci benn période bu taw mais dañuy yow xam fan la dëgg gi féete ci foofu la ñuy hmm. jëm te foofu lañ commencé toll nii quoi. d'accord waaye. d'accord euh, léegi euh, mami euh, maa ngi ñëwaat ci yow monsieur Cissé mami le cas Barthélémy Diaz ak Ousmane Sonko vu que le conseil constitutionnel jël na la décision bàyyi leen ñoom ñëpp ñu dem ci élection yi donc mën nañu wax ni confrontation bi ñu doon jox ci seen diggante lu mënta ñàkk la ci législative yi ñu jëm donc confrontation boobu même bu ñu rejeté woon li nga xamante ne ni moo di candidature euh, euh, Barthélémy Dias dafay am forcément parce que tamit euh, politique la te ñoom ñaar ñëpp ay ay ténor lañu c'est vrai nekkoon nañ fi ay doomu nday noonu lañ ko mën a woowee coalition boole woon na leen ñoom ñaar ñu dem ba ci biir amaan peut-être ambition politique yi am na différence bokkul ku ne jël sa yoonu bopp. Mm. te loolu c'est tout à fait normal parce que parce que tey amaan na li Sonko bëgg moom la Barthélémy bëgg maintenant cette euh, euh, confrontation je ne pense pas Que wara nek compliqué. Mm. non non warul mën nek lu compliqué parce que amana ñi and Barth ñi and euh, ak Barth demb ak bërki demb euh, euh, bokul ak ñi nga xamanteni ni ji ñom ñoo and ak Ousmane Sonko nam coalition boole woon na lañ ba ñu demandoo ci ci élection élection lanati la won local yi ñu gennon ba ñu amaan am li ñu bëggoon ñu dem ba ben instant ku ne jël sa yoonu bop mm-hmm. Barth dafa am Barth amna amna amna na poids électoral ça même quoi qu'on puisse dire Bart am na mhm. parce que il a fait ses preuves quand même mhm. il a travaillé ci li nga xamantene moy maire bi mu nek nek maire maireu Dakar kenn mënul taxaw ni Bart liggéeyu Dakar il a fait ses preuves en plus de ça euh, euh, ñi nga xamantene ne ñoo bootu woon ci ginnaw ki di Khalifa Sall ñom aussi ñi ngi ci ginnaaw Barthélémy Dias donc Bart il pèse lourd

dina dina dina compliqué bu tamit suñu ex président jugee euh, famu wara war ñëwaat ci réew mi. Mhm. pour bokk tamit mom tam ci ci ci ci ci géewu politique mhm. ça va être très compliqué ci ñett ñi. Barthélémy Diaz Ousmane Sonko ak Macky Sall Macky Sall mu ñëw tay bu ñëwé euh, euh, mën nañu né y Amadou Ba à côté aussi bon <laughs> dina pas ci lolu ci kanam tuuti parce que eh, bu man la bu conseil deug dem ak mm. parce que Amadou il pèse pas lourd sans Macky Sall dañ sincèrement man jangat bima am ci diggante Amadou Ba ak Macky Sall la majeure partie je veux dire. Mhm. Taïfi, Amadou Ba a amee chance moi, defuñu tête de liste Macky Sall ci euh, euh, coalition TACO. takku euh, wala wala Macky Sall pour campagne pour élection législative là peut-être Amadou Ba doon na am chance. Mhm. mais si Macky Sall revient Amadou Ba il a pas de chance. donc ñett ñii man laa mën a lim euh, ci élection yi ñu jëm euh, euh, ñu nekk ay poids lourd mu di Barthélemy Ousmane Sonko ak waa takku takku wàllu Sénégal mi nga xamante ne président de la République moo ko moo ko jiite maintenant bu ñuy bu ñu bu ñu sukkandikoo ci ay fait ngir mën a voteel nit maanaam fal nit bu ñu sukkandikoo ci ay fait li ñu teg suñu bët mooy li Barthélemy Dias liggéey biir Dakar li ñu teg suñu bët ci as Sénégal réalisation président de la République maintenant le problème euh, du premier ministre Ousmane Sonko parce que le premier ministre bi nañ sept mois ci ci ci régime bu sept mois mm. mis à part peut-être euh, euh, projet bi nga xamanteni nenañ programme bi nga la mais loolu tamit ba tey ci ay wax rek lay tënku <coughs> n'est-ce mm-hmm. amaan na Nous avons doon chance chance parce que tamit ñi leen wolu peut-être mm-hmm. mais euh, euh, ñu ñu juste 54 yi leen fal mm-hmm. à 100 mm-hmm. non non ñi tout sauf Macky mo tax ñu voter leen d'accord ba tay ñu promesse yi nga bien avant donc ça va ça ça va être un peu compliqué pour ñom man si sama euh, euh, liste Pastef ci élection anticipée yi ça va être un peu compliqué pour nous, parce que amul ay fait yu palpable des faits réels yo xamante war nañ ko mëna a ni li def nañ ko fi digënté bi ñu donc jox leen majorité assemblée nationale ñu compter suñu waaye wax nañ ni également buñ ñu leen joxee euh, majorité à l'assemblée assemblée nationale dinañu teg pôle judiciaire wala bok cour de justice bo xamante ni dinañ ci mëna traquer les délinquants à col blanc ana ñun dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy justice la bëgg xam ànd ah, cest promesse yi ñuy def yi nekk biñu nekké fi ba légui promesse yi ñuy defaté yépp ci walum reddition des comptes la dinañ top diw alal bi fi ko duggal nañ ko génné milliards li milliards en plus de ça ñi ngi accusé ño xamante ño fi nekkoon amana c'est vrai reddition des comptes mo ànd c'est des choses yo xamante ça c'est une chose bo xamante mhm. ñep ñep ñep ñëpp amul koo koy wax mu ne contre nako mu mënul nekk on est tous d'accord on est tous d'accord là-dessus <laughs> mais le problème qui se pose moi ñi ngay top def nañ fi 12 ans. Mhm. ay milliards dëgg la peut-être nga leen di toppee su fekkee euh, euh, c'est avéré mais yow mi toog barki Demba Ndiaye ay scandale scandale instant bi wër na la ci ay milliards yi milliards ay milliards chaque jour ñu dégg scandale ci régime bu bees bi te ñi ngi soog a toog sept mois lañ fi def maintenant nag bay sa weewu tànk. Mhm. transparence na ji na nekkee ci yow scandale yi ñu lay jiiñ mais génnal nga leeral avec des preuves pas ay waxi kese. mais génnal nga un scandale yi nga xamanteni ne la koy koy la avec des preuves mais tu peux pas di di top ay nit 12 ans nga di alors que yow mi fi def 7 ans ay scandale la mami ngi ñëwaat ci yow en attendant ñu euh, ci euh, euh, ñu gis ni wa Sénégal la coalition sam Euh, c'est ça non alors euh, euh, tey jii sàmm sa kàddu ak Pastef mën nañ ni benn